السلام عليكم بوكي انترنت مبكتي انكول تونتو مو لا ني ام دي جاكال يو ساس نك نين كو وخي ني في تي بير سي داكار ايميسيون بي ني مان وخ مان اك يين تاي مان اك يين نك دافا ген سي بي دوخونتو نيو فيغا خامني مو دي رومبيون يوف غيس نين رومبوان يوف بي داف نان في فيغا خامني فوفو لا خالاي دي فوي اون بلوس ماغ ني تامين نيغي توك في ني دي فيخلو دي جيل ام مي امنا سي تامين نيوغا خامني نين فو مير مي في مير مين في داف بور خالاي دي في فوي امانه نيهو لين باسكو اكسيدون يي دنج تي بري افير يوي نون دوغنا في ген في غا ماك ني موم كونتان نان تي باسكو غيس نان تي امنا mag ñoo nga xam ni fii la ñuy toog di féexlu di jël air te neex na ci loolu aussi mais je pense que tamit sécurité bi war nañ ko gën a mën a yokk euh, léegi nag xam naa dañuy doxantu tuuti xool suñu mbokku internet yi xool ci kenn koo xam ni lan la lañ ci mën a wax. waaw comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii taxaw nag ak suñu benn mbokk marchand ambulant yéen nee naa leen kenn du dem bàyyi leen ginnaaw señ bi noo tudd. man mbay ngoom laa tudd. Mbaye Ngom nga tudd. waaw. waaw ñu ngi si góorgóorlu nii. waaw maa ngi dóor waaw. Euh, Mbaye Ngom fi ñu taxaw fii nii fan la. fi yoof la. ñu ci yoof ah? waaw ñu ngi ci ñu ngi ci yoof rond bi waaw. d'accord fi nga dëkkoo wala dëkkoo fi. man Bawal laa dëkk nag. donc genre fan nga dëkk ci Dakar. Ngor laa dëkk. waaw. d'accord léegi gis nañ ne euh, genre euh, Macky Sall suñu président bi defar nañu li nga xam ne moo di rond-point bu yanj bi xale yi di fi foowee mais am na ci tamit ñenn ñi ñu ngi naan fi xale yi di foowee foog ñu yokk sécurité bi. Hmm. monte fi baax na de xale yi par heure ñu ñu ngi fiy ñëw di fon nii mais waaw. war nañu yokk sécurité bi ndax am na temps boo xamante ne nii comme timis bi nii ay booru timis ba ay booru vingt et une heures yooyu xale yi dafay bari bari waaye boo xamante ne nii fii day xat. parce que dafa mel ni affaire yi par heure la. waaw heure par heure la. heure noonu waaw bu bu amee sécurité rek dina baax daal ndax xale mu mënta ñàkk bañ a fo. waaw kay. léegi eh, mais gis nañ ni que rond point bi dañ fi def genre fi nga xam ne tamit fi la mag ñi di féexloo yow est-ce que da ngay ñëw di féexlu de. waaw léeg-léeg bu ma wàccee damay ñëw pour féexlu si. mais sécurité bi mat na. waaw mais sécurité sécurité bi des na fii amoon na sécurité sax jamono yee passé mais instant bi fi mu toll nii ñu ci bari gars yi fi doon taxaw nii presque ñoom ñëpp presque taxaw ndax suba si fenn ngay seen ne dañ fa nekkoon dañ daan yendu fee ba ngoon jot waaw boo xoolee presque jóge nañ fa dañ daan gaare seen oto. bu njëkk a waaw mais léegi. léegi yow fi mu nekk nii boo amee looy wax président lan nga koy wax. président Macky Sall waaw bu mu amee lu ma koy wax xanaa mu mu jéem ñëw keel sécurité daal ndax fii moom wax dëgg si yàlla car macha allah baax na moom mais sécurité bi daal moo des. d' kon daal fi mu nekk nii moom lépp jàmm lépp fàllaaw jaruñu fi yokk daal juste sécurité bi daal ngeen bëgg mu fii daal lépp jàmm sécurité bi daal lañ bëgg mu yokk daal. ndax àdduna moom waaw sécurité daal moo mooy mooy mooy problème bi daal. d' accord Baye Fall d' kontaan naa bu baax waay jaajëf waay. dafa mel ni am na suñu benn papa buñ seen feenee mu toog kañ doxantu laaj ko moom tamit lenn ñi nga xam ne moo di rond-point. salaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi lay yaa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi sant wér eh, fan nga dëkk yow. maa ngi dëkk fii Yoff Ndinaat. fii ci Yoff nga dëkk. Ndinaat waaw. D'accord. accord sëñ bi euh, bëggoon nañ xam parce que actuellement gis nañ euh, rond point Yoff bi ki nga xam ne moo di suñu président defaral nañu ko ba mu yaanj euh, ma bëggoon xam yéen ñi nga xam ne yéen a dëkkee ci Yoff bi fii lan ngeen ci ba xam kontaan ngeen ci wala lan ngeen am loolu ci yokk. waaw kontaan nañ ci parce que programme bu mel projet bu mel nii tamit pont bi ah mu liggéey ko fii loolu avancement la rek avancement la ci dëkk bi quoi bon rafet na bon boo xoolee ba nit ñi ñu ngi fiy ñëw partout di fi jógee di fi ñëw di def ay clip de tournage. bon il faut que ñenn ñi sax dëkkuñu Yoff de loin la ñuy jógee sax mu kon moo lay wan ni kon programme bi am na sens waaw. mais tamit euh, nit ñi ñu ngi kaas naan foog ñu yokk sécurité bi parce que fi xale yi di foowee des fois day am ay accident man loolu moom mënuguma ca parce que man mosuma assister lu mel noonu quoi souvent dama fiy ñëw nag. waaw comme li ma la wax rek xam nga sécurité bi moom nit ñi ñooy wax rek. mais boo xoolee personnel bi fi nekk li ran bu pont bi ubbee ba léegi muy les gilets jaunes que ngay voir ñu gis ñu bari fi ak ay jigéen. sonn nañ ci trop parce que xam nga xale itam majorité la ñuy ñëwee fii dañuy ñëwee fii de nombre pour nga réglé leen beneen action la parce que da ngay gis xale yu bëri dañuy nekk ci fu foo place bi ñuy fooyee bon yenn saa nga gis gardien di leen leen ak affaire yu mel noonu mais li am solo ba am solo mooy il faut rek xam nga gouvernement bi jàpp leen xam nga pour yokk effectif bi effectif bi mooy am mooy priorité bi quoi maanaam yokk gardien ñi nga xamante ni dañuy nekk ci terrain bi di gën a defar quoi en cas d' accident moom gisaguñ ko quoi parce que vraiment mom gars yi sonn nañ fi trop gars yi fi nek mom vraiment di fi liguey vraiment son nañ fi su kam ñu ngi maintenir xalé yi des fois ñu dàq ci rond point affaire yoy accident auto yi wala yu mel noonu éviter quoi. d'accord donc fum nek ni dal daal mën naa ni euh, mag ñi am nañ fi wàll xalé yi am nañ fi wàll parce que yaakaar naa ne wàll mag ñi moy fi nga xamni fi nga tok ni waaw fini bo xolé ba ci bir bon dund pour xalé yi rek.

waa dégg naa ko mais xam nga man moom du ma yëngu ci politique quoi c'est un homme neutre de ça moo moo tax quoi mais li ma la xamal daal mooy ah mu ngi noonu. mais bàyyi daal waaw ñu liggéey. mais intérêt bi li ñu gën a soxla mooy ku ci toog tamit ah nga defar quoi. mooy. parce que gis nañu wax ju bari na dañ naan boo leen ma falee dinaa lii boo leen ma falee dinaa lii alors que bu leen falee duñ def dara. waaw mais loolu yàgg na ci leader politique. laaj na ci leader politique parce que souvent toujours bu ñuy xëcc moom mën nañu xam ay proposition la ñuy kaw table bi quoi mais dès que au sommet ñu nekk ci chaise bi rek bon mooy loolu. d'accord sëñ bi na maa maa ngi maa ngi lay remercier bu baax. maa lay remercier yow tamit lu bëree bëri jërëjëf. dafay ne da nga fay foowee. neex na. waaw nga bëgg président bi yokk ko. loolu la fan fi ñuy fubale. waaw ngeen bëgg fu ñuy fubale. waaw yéen est-ce que mën nga fubal. waaw kan mooy sa joueur. Sénégal joueur Sénégal yi kan moo ci sa joueur. Sadio Mané. Sadio Mané. seen nañ fi kenn dañ koy jéem a laaj nan la gisee euh, rond-point Yoff bi ni mu tëddee yooyu sëñ bi maa ngi. dellu ci jàmm. maa nga dëkk. man non Thiès. Ah, ah, Thiès nga dëkk mais Jean fan nga dëkk. ah yoof ah Yoff nga dëkk d' accord euh, dañ bëggoon nga leeral ñu tuuti rond point bi nan nga ko gisee. rond point bi ah rompoin point bi waaw macha allah de Diouf moom ña ngi koy ñaanal di ñaanal Macky Sall xam nga waaw mu gën a jàppale jeunes yi Yoff parce que jeunes yi moom sonn nañ vraiment. parce que waaw amuñu feneen fu dul Yoff tamit xam nga ñu sañoon moom dañu si gën a jàppale quoi gis nañ liggéey bi nag mais des na quoi. des na lan moo des fi mu nekk nii yéen actuellement yéen jeunes Yoff yi lan ngeen bëgg. ah ñun jeunes Yoff yi liñ bëgg moom bari na moom. waaw parce que sant yi ku ñu jàppale lañ bëgg xam nga jeunes yëpp mooy loolu liggéey ñu xam nga ku ci mel ni man moom amul problème parce que man maa ngi sama métier di xëy di dóori. mel ni ouvrier nga yow wala lan. ouvrier laa menuisier armi ñoom laa. d'accord mais euh, tamit xale yi fi ñuy foowee est-ce que desul tamit ñu yokk sécurité wala lépp mat na. waaw pont bi nii sécurité bi dafa des parce que booy xool fële si kanam dafa war am passerelle xam nga niñ ko joobee dafa des quoi. macha donc da nga gis ni fee dafa war a am benn passerelle. am benn passerelle parce que du pour man quoi mais tout tànk yi parce que jéegi fii wóorul koi d' accord euh, actuellement fii nii Yoff kan mooy seen maire Diop saa mais je pense Diouf Sarr mais je pense que dafa am kenn tamit ku ñuy wax Moustapha dafa bëgg dafa bëgg genre ñu fal ko mu nekk moom aussi maire Yoff waaw Moustapha waaw maa ngi dégg gars yi moom pour ñu fal ko mu nekk maire Yoff mais moom tamit borom baala quoi jeunes yi bëgg nañ ko topp nañ si ginnaawam te mu ngi jàppale jeunes yi quoi. d' kon donc gis nga ni Moustapha Tall buñ ko tegee ci ci ci ci Yoff bi dina doxal. ah pour man boog buñ ko tegee si yoof moom dina jàppale jeunes yi quoi parce que gis naa ni muy taxawoo jeunes yi quoi parce que bu dara sax xam nga bari na fi doole. waaw donc ban message ngay am boo koy lancé. Ah, message ma koy lancé xam nga comme li mu jiital nii mu jàpp te bàyyi rek te xam ni jeunes yi ñoo ngi si ginnaawam xam nga. yoo fois yëpp ñoo ngi si ginnaawam di ko jàppale xam nga ñaanal ko jàmm yàlla ma jox ko maire bi xam nga waaw. d'accord sëñ bi kontaan nañ ci yow. waaw ñoo ngi lay ñaan. jaajëf. waaw bëggee. waaw comme ni ngeen ko gisee ñu ngi woon fii nga xam ne moo di rond point gis ngeen euh, interview ñu def ak suñu mbokk internet yi xale yi kontaan nañ mag ñu kontaan nañ amaana tey euh, xam na heure bi ci heure bi la rek mais bu beneen yoon tey incha allah mooy dàq ñu ngi leen jox di déglu bu beneen yoon.